auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa inni u'iiduha bika wa duriyataha min asheytaani rajim rabbi auzu ñi nga xam ne ñu topp suñu seen bi di Diwane ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajafal te di leen ñaanal jàmm te di leen defal ñaanal tawfiix ju sax dàkk barke alquranul karim di leen jégg lu baax gëj gi nu gëj ci daara ji di wax ni ngeen wéy di abonné tey partage vidéo yi te di ko aimé mbokk yi comme nañ ko baaxoo def saa su nekk rek tey ñu indi leen lu am solo loo xam ne bii jóoni jóoni la ci basmala maanaam soxla bu mu mën a doon nit ki def ko ci yéene ak sell soxla boobee du yendu bu dee bëccëg la du yendu bu dee guddi la du fanaan incha allahu rabbi ci kàttanu suñu borom jóoni jóoni ci basmala ku ne xam na basmala nag moom ni mu mel incha allahu rabbi laataa loolu mbokk yi yéen ñi nga xamante ni bii yéen bëgg lu jëm ci wàllum peinture koo xamante ni dafa liggéey bâtiment am ba mu pare mu bëgg koo peinture am nañ ci jëmm joo xamante ne bii macha allah ci wàllum liggéey boobu nga xam ni foo mën a nekk ci réew mi dina la fa fekk ci kàttanu suñu borom ku man li muy def te loxoom set wicc te sell lool te leer jàngi xam-xamam ci yi naar yi ba man xeeti decoration yëpp boo ci bëgg rek bu nekk incha allah rek mën na ko kooku nag ku bëgg a jokkoo ak moom mën nga ko 718 76 95 718 76 95 ñun nag du ñu ànd ak ku loxoom setul du ñu ànd ak ku jubul macha allah man li muy def moo tax ñu sañ ko sponsorisé sañ a jàllale mbiram ci chaîne bi foo waay mën a nekk te bëgg a peinture lu ci lu jëm ci wàllu batiment façon décoration bu mën a doon ci wàllu peinture ci niveau modèle yi mujjee génn na nga jokkoo moom. moo xam nga nekk réew moo xam nga nekk ci Sénégal wala nga nekk ci réew yi Afrique yi fu mu ci mën a doon rek boo ko wee fa nga bëgg moo liggéeyal la ko boo ko waxee dina fa dem ak équipe am incha allahu rabbi mën ngeen ko woo ci 77 718 76 95 waaye ginnaaw loolu mbokk yi ñu andil leen jatu foqit ñu indi leen foqat boog foqat goo xamante ni bii wallahi wal qur'ani kéemaane na lool. moom nag képp koo xam ne bëgg nga ko nanga jox ko ak ñun incha allahu rabbi moom nag képp koo xam ni am nga ko takk ko sa loxo si kàttanu lépp looy xëccoo lu nekk dang si jot si kàttanu suñu borom lu mën a doon nga di ko xëccoo di nga si jot te wërsëg moom dana la jàppandi lool sax incha allahu rabbi mu doon nag jat goo xam ni. ci raw rawxaan lañ koy liggéey daa ànd ak rawxaan moo tax moom nag képp koo xam bëgg na ko maanaam daal képp koo xam mënoo am jaara bi na nga ko fexe am moom nag vingt huit mille cinq cent lañ koy liggéeyee vingt mille cinq cent moom lañ koy liggéeyee incha allahu rabbi dan koo sëñ te yokk waaye bon ko saña yokk day wallahi wal quraan des na ko liggéey sax cent mille waaye sëñ ñu koy yokk vingt huit mille cinq cent moo doon njëgam képp koo xamante ni bii am jaaro bi tëna la na nga fexe ba am foqat gi takk ko sa loxo nga xool da nga dem ba yéemu suñu borom wala mu xëccoo nag moom lu mu ci mën a doon da nga ko jot incha allahu rabbi ko bëgg mën ngaa jokkoo ak ñun ci 77 793 94 37 77 793 94 37 mu doon lu yéeme lool ak xeeti cangaay yëpp façon bu mu ci mën a doon waaye bëgg ko na jox ko ak ñoon ak lépp lu jëm ci lu yéwénal mbiram incha allah. te nag ñu indil leen basmala bu doy waar boo xamante ni bii nan ma déglu bu baax a baax a baax incha allahu rabbi dangay jël sa kurus ginnaaw boo jàppoo ba sell bu la neexee nga julli ñaari rakka rakka bu nekk nga jàng ci fatiha benn yoon lixlaas ñetti yoon incha allahu rabbi nga sëlmal nga jël sa kurus <coughs> nga def. astaxfirullah xam nga kurus gu nekk téeméer lay doon kurus yi téeméeri per lay doon bu ko defee da ngay def astaxfirullah soixante dix astaxfirullah astaxfirullah ba mat soixante dix boo ko defee day des fanweer kurus gi fanweer lay des fanweer boo bu ko defee nga commencé nga def ko bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim boo yeggee ca vingt-neuvième ba nga xam ni benn paire ci des pour mu doon fanweer boo ko fanweereel boo nee bismillahi rahmaani rahim da ngay jàll da ngay jàll jàngale fatiha comme boo nee bismillahi rahmaani rahim da nga naan alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi diini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iinu ihdina siraata almustaqima siraata alladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala daalin amin maanaam ca ca ca trenteel ba maanaam boo defee vingt vingt neuf ba ko trenteel boo nee bismillahi rahmaani rahim danga cay teg nag fatiha ba mu jeex ba pare na nga gestu istixfar bi nga doon def noo koy gisoo noo koy gestoo da ngay wax fa xultu staxfiru rabbakum yursil sama aleykum midraaran ba aaya ba jeex benn yoon nga tëjee ko ñetti salaatul fatihi nga ñaan ci sa soxla soxla bu mu mën a doon aaja bu mu mën a doon suñ borom dana la ko fajal te yomb na lool li am solo ma nit ki def ko ak yéene ak ak sell ak ak dogu si kàttanu suñu borom suñu borom fajal ko ko jooni jooni la incha allahu rabbi yal na ko suñu borom barkeet defal leen ci ndam wa salaamullahi